wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalq sayidina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi diin euh, mbokk yu baax yi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision future média fu ngeen munti nekk fii si biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq di leen bal àq di leen ziyaare si àjjuma ju tedd ji di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala moom mi borom tawfiq yàlla nañu ko defal defal ko mbooleem fu nit di yeewoo ci fii si biir réew mi ak ci bitim réew ñuy nuyu di ziar itam suñu kilifa diine yi ak kilifa aada yi rawatina nag euh, di ziar di barkeelu si jigéen ju tedd jooju nga xam ne moom lañ doon màggalal démb muy soxna jaariyatullaahi Buso di ñaan yàlla màggal googu lañu fa ñaan ci ay xéewal ak ay taraanga yàlla nañ ko yàlla dottil waaye lañ fa musuloo yal nañ ko fa yàlla yal nañu yàlla musal te soril ko di ñaan yàlla itam daara jooju nga xam ne mooy daara maam jaara bu sow ah turandoom ya nekk fa di jàng rawatina ka nga xam ne moo ko jiitee di soxna maam Awa Dem di sët ci Cheikh Ahmadou Bamba di sët ci Ahmed Dem Sokone euh, macha allah di jigéen ju mën góor moom it ñu koy ziar di ko ñaanal yàlla tawfiq di ñaan xale bu fa mokkal alquran yàlla nekk njëriñu réew mi nekk njëriñu ay waajuram euh, di ziar bu baax nag macha allahu taala soxna Bali Muntaxa soxna Bali Suaybu soxna Bali sama sëriñ sama xarit. sama wasila ci kër buntu kër Cheikh Ahmadou Bamba di sama soppee ju baax ju di ko ziyaara di wax ne yàlla li mu dogal waaye lu ñu préparé woon woon waaye bi ñu jógee nag euh, Wélingara macha allah yaram wi xaw a sutante loolu moo tax ne su ma toppoon sax sama xarit sama soppe Adja Binte Diallo kon bañ jógee Wélingara rek dañ doon jàdd Kaolack sax ñu doon tàggu kaaw jubali Poroxaan waaye nag ñu ñëw yaram bi sutante loolu moo tax vraiment ñu koy nuyu bu baax di ko ziyaar di nuyu nag ay am di jàmmam ak ay soppeem rawatina sama turandoo soxna faatu bintu juuf faatu Géwél waaye man Fatimatu Bintou Rasoul turandoo doomu Seydouna Mouhamed di ko ziar ci màggal gi ak sama xarit sama soppe sama mag Adja Ndella Wade di ko nuyu di ko ziar di ànd ak moom ci lépp lu mu nekk di ñaanal sunu borom kër bu tedd boobu di sëriñ Babacar jaay yàlla na ko yàlla defal tawfiq jafe-jafe bu mu nekk yàlla na ko yàlla teggi parce que ñi nga xam ne ñoo ànd rek ci mbiru àdduna ration rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak Seydouna Mohamed di ay euh, njabootam moo xam tàggkatu diine eh, di eh, woy la eh, it wala kuy firi rek macha allahu taala amal nga ñaan Serigne Babacar Ndiaye Mbaye Ndiaye ñu koy ñaanal yàlla fu mu nekk yàlla ko yàlla may jàmm yàlla delloo ko ci sagoom yàlla delloo ko ci wér gi yaramam yàlla bu mu gis benn lëndëm lëndëm xat-xat bu mu nekk yàlla na ko ci yàlla dindi ndax wax dëgg yàlla rek képp koo xam ne ndax ñun mooy suñu cër ci mbir mi nekk koo xam ne ku yàgg teral la ñuy tagg naa mook soxnaam Adja Ndella Wade yàlla neen yàlla defal jàmm ak seeni xarit ak seeni soppe ak seeni am di jàmm su ko defee ñuy nuyu tamit suñu yaay yëpp yaayu daara yi teg ko ci loxo ajaa Kumba Wali Diagne mu jox ko tànday Marème Jong Adja Dégène Fall ñu séddale ko yaay yi rawatina suñu yaay ja ca Wélingara euh, yaay booy jeng dundal gudd fan ñu ngi lay ziar rawatina suñu yaay Fatou Camara euh, macha allah Camara Anta Jibi Booy maa ngi lay ziar loolu nag mami bu bu defee ne si yow laa ko jëlee waaye suñu yaayu bopp la di ci ja euh, ziar sama umpaañ Adja Dégène fa mu nekk ñoo koy ziar bu baax di ko wax namm nañ ko lool. lool lool lool lool lool macha allahu taala di ko ñaanal yàlla wér gi yaram ak fan bu gudd euh, bu ko defee rek macha allahu taala xam ngeen ne ñi nekk ci guddi yu lëndëm yi moo xam wéradi la moo xam dañu nekk itam ci bërëb yi ndax ñëpp ay suivre TFM ci lépp nag macha allahu taala nga xam ne dañu ñu ngi jégalu sax borom kër yi ci naaje añ yi macha allahu taala ndax émission bi dafa xaw a naaj ndax 11h midi la ci fii ci biir réew mi ak bitim réew ñi nga xam ne da leen di fekk ñu nekk ci wàccaayu jumaa yi waaye dañ koy kar ci redivision bi samedi matin bi ak dimanche matin bi ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax nag di ziyaar baax rawatina Adja Ramatu Diop maamu mama Amina borom euh, koto boole macha allahu taala ñu koy nuyu bu baax di nuyu waa Rouen waa Elbeuf maa ngi leen di wër asfal foo nekk maa ngi lay wër di ziyaar itam di nuyu macha allah waa Le Havre ma waa Alenso waxatuma nag Adja ci Évry Kouroukourone su ko defee rek mbokk yi euh, xam ngeen ne waxtaan wu mujj bi euh, ginnaaw bu ñu ziyaaree ñu nekk ci prison yi ñu ngi woon ci set muy waxtaan bu ñu defoon keroog ci Wélingara la purification en l'islam ñu amaat ci nag ay question yu bëri keroog am na ko laaj nan la ñuy sangoo te xam nga ne kenn mënul jàmm yàlla te doo sangu rawatina nag boo demee ba ñàkk kenn ku génn ci sa membre famille xëy na yow nga sang sa bopp sax yomb na waaye nag sang ki nga xam ne daf la jege tëdd nekk niiw loolu nga xam ne suñu professeur Oustaz Rawane Mbaye mu ngi ciy def ay leçons yu am solo ci centre bi jigéen ñëpp war a defee formation boobu ak góor ñi sax nag ndaxte góor mën naa sang soxnaam soxna itam mun naa sang borom këram ndax Asma binti Abibakarin ku toll abu Aboubakarine Siddiq ba mu génnee àdduna moo ko sang waaye gis nañ itam intervention bi nga xam ne imam Alioune def na ko bi Fatima sama turandoo doomu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom garaat bu mag boobu génnee àdduna itam ni mu ko taxawoo ak jigéen ñi. su ko defee itam xam ngeen rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un da munul ñàkk ndaxte kat nag àdduna bi demal maa ngi ñëw rek la te kullu nafsin zaiqatul maut yàlla nee na bakken bu mës dund dina mës génn àdduna kon monde arabe monde oustaz yi macha allahu taala rawatina waa pikin am ku wàññeeku si ñun di suñu oustaz di suñu borom kër di suñu lépp di oustaz Youssouf Dem euh, borom këru ajaan naa ba Ñang ñu koy jaale Mouhamed ak Oumar njabootam yëpp di ko jaale oustaz Fat Kan oustaz Assu Konaté waa falaax yëpp di ko jaale ahlu Pikine rawatina Alimatu Kamara ñu ngi leen di jaale oustaz Ahmed euh, Youssouf Dem yàlla na ko yàlla xaare àjjana ya gën a kawe euh, bu ko defee rek mbokk yi euh, macha allahu taala xam ngeen ne cet li nga xam ne moom la ñuy wax ab taxaara ku nekk xam na koo ko laaj tey danaan la ñaari parti la parti biir ak parti biti parti biir mooy taxaaratul baatin mooy setu biir mooy li ñu waxoon xol bi jikko ji làmmiñu garmi bëtu garmi noppu garmi nga xam ne yiw ngay dégg waaye yiw ngay xool waaye yiwit ngay xeeñtu lépp loo gis du ñaaw ci yow li yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallama ne Aïcha laa takuni mutafahish bul nekk koo xam ne dangay gëna ñaaw ñaaw mooy ku la gajj nga gajjat ku la xosi nga gajj ko liñ naan ku ma ku ma ku ma ku la xuri ku ma ku ma wokk ma xuri la loolu du lislaam su ko defee mooy set ci biir set nag boo gisee tey ñu indi ko dafa nekk mbir moo xam ne dafa laal diine ndax set munoo mukk jaamu yàlla subhanahu wa te set gi amul te nag ñu am ci benn ruq-ruqaat yu sew yoo xam ne dafay gàllankoor ñi nga xam ne ñoo war a jaamu borom bi subhanahu wa ndaxte dañu gis ne setu yaram mooy indi wér gi yaram te pour nga jaamu yàlla il faut nga wér xoolal bu la dara dee metti da ngay gis ne sa jaamu yàlla day diis solop di nga dem ba sàggani julli woor taxul ñuy wax aji màkk taxul ñuy wax génne azaka ndax loo waroon a génne azaka di nga ko fajoo kon ndekete set mu ngi jàpp ak wér gi yaram ndax ñoom ñaar ñoo lëkkaloo gis ngeen feebar sax macha allah bi nga xam ne moo am ci àdduna bi fan yii Euh, muy lu bon loolu nga xam ne man tur bi sax mënuma ko baax xaw ma Ebola la xaw ma musiba mais boobu gis nañ ne set bi ko ñëpp jógee xeex ak moom set defe naa ne lu bëri daan nañ ko ci moom euh, yàlla borom bi subhanahu wa taala nag santaane set santaane ko macha allahu taala ci biir julli rawatina ci jaamu yàlla bu mu mënti doon il faut que mu laytaayoo set ñu gis ne euh, aji woy dencant yi muy boroom kër bi ak jigéen ji rawatina nag boroom kër yi nga xam ne dañoo am ñaar ba ñett ba ñeent nga xam ne quatre partenaires la ñu am ñooñu war nañu gën a seetaat nan la ñuy jëfandikoo set rawatina sedd bi ci côté bi nekk fii ndax boo demee ci région yi fi mu nekk ñoom dugg nañu presque ci tàngaay bi ak yeneen ci ay dëkk mais am na yeneen dëkk yoo xam ne ba léegi lu mel ni waa waa waa Norvège maa ngi jaar di leen nuyu di leen ziyaara ñoom ñëpp lu mel ni waa Italie ñoom ñëpp Adja Kine ñoom ñoom ñu ngi ci sedd ñu ngi ci glace bi ñu ngi ci neige bi ñooñu moo tax te al diine l'islam ñëpp lay waxanteel ñooñu nga gis ne set boobu nga xam ne moom nga war a 5 heures du matin nga yeewu wala 4 heures du matin nga yeewu ànd ak sa borom kër wala nga yeewu ànd ak deretu wasin wala nga yeewu ànd ak deretu règle wala nga am deretu jorngol wala nga gént am maniyu yooyu nga xam ne cangaay moo la war ci sedd bi metti na xëñ na yenn saa yi euh, euh, moyen nu nooy tàngale ndox wala chauffage bi mën na nekk mu nekk en panne wala yu demee noonu wala chauffe bi yooyu nga xam ne jotagoo ko nga war a jàmm yàlla nan ngay def loolu tamit nga xam ne yàlla nee na yassiru wala tuassiru lan yushadda diina ahadukum illa alabahu kon nag yassiru wala tuassiru yàlla borom bi subhanahu wa taala nee na diine l'islam yombal la gis nga bu boobaa dafay am ay lu lu mu lay yombale mooy lu mel ni tiim di wax itam toujours ñi nga xam ne ñu ngi am janaa ba démb rek am na ku ma ci doon laaj ne ma dama yeewoo ak ba mais ndax mun naa togg ndékki ah kay mën nga togg ndékki bu dee da ngay woor sax mën nga xëdd mais ci kaw nag mooy nga jàpp jàpp julli mais jàpp boobu euh, al wudu lañ koy wax mais du wudu bu lay permettre nga julli waaye mooy jàpp bi lay permettre nga mën a lekk wala nga mën a naan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na def saa yu joteeg soxna yi bala soxnaam yi balaa balaa balaa balaa lekk balaa tëddaat sax day jóg jàpp bu fekkee ne cangaay li mënul teew euh, kon gis ngeen ne ngeen baal ñu toujours parce que bu ñuy wax ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di tudd càngaayam wala di tudd ay lenn si ay cëram dina xaw a dis si ñun en tant que profet sallallahu alayhi wa sallam waaye moom nag sens interdit moo amul ci moom toujours dama faral di ko wax amul ci chambre à coucher amul ci euh, lalam amul ci biir salle de bain amul ci nu muy demee lépp rek yàlla ndax dafa ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana comme moom yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne lépp ci moom lañ ko war a roy soxnaam yooyu ku mel ni euh, saydatuna Aïcha bëri na loo xam ne yonent bi jàngal nañu ko am na ndaw suma sa ñëw ci yonent bi ne ko ndax bu ñu gisee baax ba pare nan la ñuy setale yonent bi ne ko dangay ngay jël coton nga def ko ci parfum nga jaarale ko ci jaar jaar xam naa kooku rek nekk moom euh, benn euh, xawma ku ma ku ay satu ñaa laay wax xaw ma Adja ci sama doom yi laa koy kiiyee ne ko ah dana lan munul fexe ba comprendre jëliwul daal li xale yi di wax jëli jëliwul yonent bi comme dafa bëri woon ker sa daal ne Sayyidatuna Aïcha jàngalal sa mbokk mi Sayyidatuna Aïcha yóotu ko dugal ko ci ruq bi ne ko mooy jaar jaaru dereet yi fépp foo xam ne deret bi jaar na fa demal nga nettuwaaye ko kon ak coton soo amulee parfum sax nga jël ndoxu citron wala nga jël vinaigre nga euh, raxe ko ndox bi pour que doo am xet parce que jigéen warul am xet xet bu naqari mën na am nag lu neex di gilli si moom buy génn sax war nañ ko nee nañu képp koo xam ne dangaa suuru wala nga parfumé wu pour ñu am sa xet njaal euh, njaalo nga ñu bëri di laajte daan ne ñoom dañuy ragal a def parfum waaye kaay ma wax la ragal def parfum ba tax nag nga bàyyi sa sa nga ne da ngay dund sunna ba génn di lor nit ñi ci jullikaay yi comme léegi ñun jigéen ñi macha allahu taala ñu ngi commencé di dem jumaa yi ñu ngi commencé di dem si jàkk yi ñu ngi commencé di dem ci mbiru diine yi dëgg la waxuñu la ngay parfumé wu di suuru ba góor góoroomu mu xam jigéen jooroomu muy muy muy caddi caddi ndax bég ndax sa xet waaye nag ah non waxuñu la nag nga xesaw xunnu gis sa règle wala nga gis sa deretu wasin nekk ak say say garniture yendoo ko suba ba ngoon jot doo changer doo ko dindi ba nga am benn xeet bi kooku moom lislaam du ci d'accord parce que an-nazafatu min al iman nit dafa war a set waaye dafa war a xeeñ lu te am na parfum yoo xam ne nekkul luy heurter nit nekkul luy attirer nit ak ay suur cuuraay yoo xam ne yëre yi ndax xam ngeen ne humidité bi nekk fii gis nga yére sax boo ko dencee bu yàggee ci armoire bi dafay am xeet mu yàgg ci mu yàgg ci saag ngay gis ne yére bi boo ko génnee day am ay tache wala muy xeeñ xetu denc te loolu àndul ak xabaara àndul ak civilisation àndul ak setu diine l'islam kon ñu gis ne rawatina ñi nga xam ne dañu am feebaru deret mooy dañu nekk istihaada jorngol defe naa la ko olof yi di wax mooy deret yi nga xam ne ñu jigéen yi nga xam ne tout le temps dañuy nekk si deret gis nga ñaar dina ko waral su rawatina ñi am age yu nga xam ne xaw na nañu am à partir de quarante 40 ans préménopause yi nga xam ne dañuy am perturbation ci seeni règle ak ñi nga xam ne dañuy jël ay préservatifs pour grossesse espacée yi yenn saa yi dañuy am perturbation ci seeni règle nga xam ne seen règle day dem di ñëw di dem di ñëw am ñoo xam ne feebar la euh, wéq bu la seytaane wéq la Euh, ci colka yi ci yenn saa yi melokaan yi loolu tamit dafa koy faral di indi yenn sañse yu six yi nga xam ne nga sol lu seere di génn seytaane bi xool la xool xemmam la mënu si jot dalay daal di coup kon yéen ñi sol yu gàtt yi di sol yaramu neen yi di def seen bopp comme ay ay njabootu jinne ba kenn mënu leen a xàmmee ngeen bàyyi xel ne soo moytuwulee nga taseeg benn seytaane bu góor mu yootu yootu jotu la dalay lay coup loolu moom lu leer la ku ci am bëgg am lu la gën a leer na nga ñëw gisanteeg man ma wax la leeralal la ko ak loo koy dindee loolu dina tax foo toll ngay sañe am na na jigéen ñoo xam ne ñoom ñoo bon seen bonu bopp ak quelque quelques charlatans ñi ñu ko sañ a wax ñoo xam ne dañuy dem seen borom kër takk soxna ñu ne ko dañu bëgg nga defal ñu gàllaaj boo xam ne te loolu gàllaaj bu yomb la nga def ko ci mbott wala ci leneen rek ndaw si fu mu toll di sotti deret loolu nag ku képp ku ko def jigéen na la wóor ne yàqal nga ko àddunaam waaye yàqal na la sa àllaaxira ndax ana lu fi ñor bañ koy mëcc wujjee dafa jar ngay liggéey sa wujj pour muy gis deret toujours yow boo nekkee waa ji tout le temps lu mu lay jëriñ bu yàggee nga mel ni ceebu jën ni mu mel ci biir Sénégal bu su yàggee dootu ko neexati léeg-léeg mu ne dafa bëgg yaasa wala léeg-léeg mu ne dafa nam mu cuu wala dafa nam mu supp kànje kon nag jaru ko fi jigéen ñi nañu gëm yàlla te delluwaat ci seen borom am na ñoo xam ne seen deret loolu la xeetu deret yooyu nag mbokk yi am na ci yoo xam ne boo ko gisee ba mu jeex dangaa war a sangu xam nga li ñuy wax kudra ak sufra am na ñaari xadis yu ci werante um du sax werante mais ci gisin bi la ak ci déggan muy xadis ummu atiya bi nga xam ne nee na kunna laa nu'iddu sufrata awil kudrata baada tahara bi sëy mais saydatuna aïcha mu ne bu leen yàkkamti bu fekkee ne da ngeen a gis deret yooyu ma wax moo xam règle la moo xam euh, deretu wasin la moo xam jorngool la moo xam da nga gis man yu wala da nga gis wad yu wala da gis was yu muy façon ndox yoo xam ne day génn ci jigéen perte blanche am na ndox yoo xam ne liquide yuy génn si jigéen yooyu ndox moom du jar jàpp du jar sangum parce que jigéen xam ngeen ne appareil am dafa compliqué ndax dafa am ñett appareil yu feeñ ci kanam ak ñett yoo xam ne dana dugg si biir appareil yooyu nga xam ne moo dugg si biir dafa am lu siy génn di ndox boo xam ne day sereté mais ndox boobu dafa ànd ak dundu doomu aadama ndox boobu jarul jàpp ba mu des euh, euh, euh, Shafi'i rek moom moo ne ndox boobu dafa set mais euh, ngir yëpp dañu ne ndox boobu bu génnee dafa nekk loo xam ne lii euh, sobe la mu am ndox boo xam ne bu génnee du sobe mu am ndox boo xam ne bu génnee jàpp moo cay war mais mu am deret ak ndox boo xam ne bu génnee macha allahu taala cangaayu farata moo la ciy génn ci ngay mën a dem julli ji ci ngay mën a jàng alquran ci ngay mën a sëy ak sa borom kër ci ngay mën a tawaaf kaaba ga ci ngay mën a dugg sa jàkka ja waaye du la tere lekk du la teree togg du la tere fóot du la tere nekk ak sa borom kër sax euh, am na fenn fu ngeen mën a yem parce que Seydatuna Aïcha mi nga xam ne macha allahu taala moo jàngal jigéen ñi ci jàngalinu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne daal bu doon tey sax danga naan ministère de l' éducation nationale Seyduna Muhammad dafa mel ni Seydatuna Aïcha la fa nome woon ndax bi mu naan xuzu nisfa diinakum an haazihil xumayra jël leen seen genn wàllu diine si jigéen ji moo tax Sayyidatuna Aïcha yàlla nañu ko yàlla fayal nee na man mag yonent bi danoo jege yantoo woon bëri na loo xam ne dëgg la Umu Salamata wax na ci hadis boobu digganteem ak Umu Sala Umu Sulaym jabaru euh, Abu Talha euh, mus na ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi di wax ndoxeetu ndox yooyu muy maniyu di maniyu sperme bi wala wad yu wala was yu muy ndox moo xam ne en général si góor ñi lay gën a génn mooy bu ñu sawee ba pare góor ñi en général bu ñu sawee ba pare am na benn ndox bu diis boo xam ne dafay génn dafay foor ndox bi dafay xaw a weex ndox boobu di génn après saw kooku du maniyu am na ku musoon a ñëw ci saxaaba yi saxaaba yi ne ko yow mu ne ndox moomu daal dafa faral faral di génn si man ñu ne ko loolu maniyu la nee nañu bi ñu paree ibnu Mas'ud daal di gaawantu fekk da doon naa fi la ne leen déedéet yonent bi nee na loolu jàpp rek lay waralaat mais du waralaat cangaay ñu gis ne euh, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam umu Sulaym dafa ñëw ne ko ñun daal ndox mi nga xam ne day génn ginnaaw bu ñu géntee ndax dafay jar ñu sangu rek après umu salamata daal di mel ni ku jommi daal di nee nañ sax dafa jël kaala gi daal di muur kanam gi mel ni kurus daal ne yonent bi ah, jigéen nu muy gisee ndox yonent bi ne ko sakalak ki ummuk loolu façon wax la mba moo yow daal yow yëgoo dara wala yu mel noonu genre wax yooyu waxu waxu waxu bu ñu doon wax la yow daal yàlla na nga toskare wala nangam fekk li nga si jublu mooy yow mi yaa texet waaw wala sax moowu yaa texet kon jigéen nan la ko doomam di nuroo bu fekkee ni jigéen du gis ndox boobu mu daal di ne ko ah fadaxti nisa eh, weer nga jigéen ñi kon ndekete jigéen dina tëdd gént sëy ak nit ba génneen man yu bu ko defee dafay war a sangu comme ni ko góor di génte en général nag dañuy gis ne ci góor yi waaye tey bu la dalee rek ñu commencé ne la da nga am faru rab ñu gis ne macha allahu taala ndox yooyu nag boo ko gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme dafa ne sangaayu faratay daal mooy al ussu min al janaaba wal ussu min al xaydi inda inqitaihi wal ussu min al nifaasi kazalika wa min al wiladati bila dammin wa xaslul muslimil mayiti illa isa kaana shahida gis ngeen euh, ñi nga xam ne ñeenti cangaay yi moom bu daf lay war bi njëkk bi mooy jigéen ak góor a ci yem mooy janaaba mooy nga tëdd ak sa soxna boo tëddeeg sa soxna ba li ñuy tuddee euh, ngeen baal ñu si jàngalin bi la ñu bëri di ko wax inzaal muy wàcc wala daanu dangaa war a sangu wala sax wàccoo wala daanu woo ngeen baal ñu de euh, euh, ndey buy jàngal ay doomam rek ñuy baal itam ci kilifa mag yu mag yi ñuy déglu waaye doomu aadama moom il faut que loolu munu cee ñàkk parce que ci la nit di soso mu ne ndox moomu su génnee muy ba Euh, macha allahu taala léeg-léeg góor bi ak jigéen gi ñu ànd di sëy te duñ ko gis waaye nag am na ci cëru góor bi bopp bi ci boppam bu fekkee fàddu na ci cëru jigéen bi doonte ne ndox génnul sangaay day war mooy am na jaxasoo boo xam ne nu muy fooree ba egg ci cëru ku góor ki fàddu sikkaru du lépp nag mais nee nañu côté bi nga xam ne bu ñu ko dee euh, jublul penk wala xarafal loolu la ñuy dagg mooy wa maibul xashafati fil farji yu jabu aw tou jabul ust mooy loolu bu fekkee ne fàddu na ci kanamu jigéen gi dafay sangu ndax question bi ñu bëri dañ koy laaj yenn saa yi ñu bugg ko def sujet tabou ne kenn waru cee wax waaye njàngale yone Sayyidatuna Aïcha nee na yàlla yërëm na jigéenu ansaar ndax ñoom kersa terewu leen laaj seen diine te lii da ngay gis koo xam ne dafay dem ba mag dem bay waaj yoonu màkk te yii du ko mën a settante parce que góor ñi duñ ko mën a wax jigéen ñi waaye ñun ndey yi nga xam ne ñooy jàngal parce que loolu moo doon philosophie ndeyale du woon génne ay mala ay maal ay million ay biisu di ko teg mais pour woon jàngal njaboot gu jigéen gi bu ñu tolloo ci yu mel nii loolu mooy lan mooy euh, kon nit ki ndekete bu jaxasoo walla benn po moo xam ne sax jaxasoo amul mais ngeen di defante yoo xam ne dem ngeen ba yéen ñaan ñëpp ngeen wàcc ndox moom bu xesee ba génn si ku góor ki te muy mani yu rek sangaay war na mais bu dee alwad yu walla almas yu li nga xam ne mooy ndox moom di génn ci bànneex muy nekk ndox mu sew ndox moom da ngay jàpp rek doo ko doo ko doo ko sangul loolu tamit jar na xàmmee règle saa yu jeexee il faut nga sangu bala ngaa sëy ak sa borom kër mën nga sax tiimal règle dem julli mais munoo tiimal sëy kon jigéen ñi bépp jigéen bu ci bëgg jur lu baax bëgga set ndax yonent bi yàlla dafa wax ak moom ci règle li gën a dangereux nag mooy ngeen di sëy fekk yéen a ngi gis règle ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na yàlla wax na ko ne ko wa yasalunaka anil mahidi qul huwa aza qul huwa azan fatasilu nisaa fil mahid mooy ne dañu ne dereetu régal boobu lor la ay microbe yu bari def ci jaxasoo loo xam ne du caaginu nag jigéen ji mais dañ ko bind si nature am la bokk yàlla ne yonent bi sallallahu wa sallam ñu ngi la ciy laaj waaye jigéen jooju bu tolloo ci régal bu mu sëy ak boroom këram bu mu sëy nag duwul ne bu mu tëdd ak moom ci lal fa'tasilu nisaa fil mahid am na irtisaal boobu ñuy def mooy beru bi am na fu mu yem waxuñu la mu tëdd ca lal bu ndaw ba waxuñu la mu tëdd ci saal bi waxuñu la nga bañ fa aye ndax dafa am góor ñoo xam ne ñoom dañuy am fu ñu gën a neexle bëgg yàkkamtiwuñu wuñu rek bu dul nga am ngànt bu ndaw ba ñu gàddu seen mbàjju daal di dem feneen déedéet yàlla waxul loolu ndax sëydatu saydatuna Aïcha nee na kunna nafaalu kulla cheyin illa al wata maag yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal ñu ba tey nee na bu ma nekkoon ci régal doon na def ak man lépp ba mu des sëy mooy ne sa jabar mun nga mun nga mun nga koo jege mën nga koo wéttali mën nga jàll ak moom ci yi nga xam ne mooy jiitu ci sëy ba mu des nag diggante jumbux bi ak oom bi loolu moom yonent bi nee na bu ko laal kon jigéen ji bu boobaa na ko nëbb bu baax xam naa bu doon jamono tey suñu doom yi ñu wax leen ne seen fiso yooyu ñuy sol ak seen baay yooyu kon sol ko boo xam ne dina ñëw ba si oom bi diggante boobu moom waa ji lu yëfi sori sori tar tar góorgóorlul ba bu leen fa egg waaye bu dul foofu nag li des ci yaram bi yëpp mën ngeen koo kii parce que itam euh, léeg-léeg nga dégg ku naan non bu gis nit ki ji gisee ji euh, règle rek nañ ko ber ber bi nag mën nga sax tëdd ci saal bi wala daal na ko sori daal ba régal non non non non diine demewul noonu diine demewul ci ci la nga jàng wala ci dëkk ba nga dëkk wala yow sa sa sa sa nooy dunde parce que yàlla moo ko moom moo ko jox yonent bi moo ko wax nan lañ koy defee kon ku bëgg a dund diine da nga koy def ni mu la ko waxee kon ndekete jigéen ji bu bu bu gisee règle jumba xam ba óomam dong lañ la tere waaye li ci des kenn terewu la ko muy benn ñaareel bi itam mën nga lekkandoog moom mën nga naananoog moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saydatuna Aïcha nee na daanaa gis règle man saydatuna Aïcha ma jël potu ndox naan bu ma naanee ba pare ma jox ko sang bi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ma tegoon sama gémmiñ moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu teg fa gémmiñam ndax gémmiñ nag du gis reegal nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man doon naa nekk ci ngànt moo xam reegal la wala ci ba ma sangu ba pare desitu ndox bi ma sangoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw sangu ci kon ndekete boo tàngalee ndox nga sangu nga am janaa ba moo xam yow jëkkër ji moo xam yow jabar ji mën nga jëkkër ji mën na ñëw sangu ci jabar ji itam mën na ñëw sangu ci ndox ndox moomu ndox mu sell la su ko defee mbokku jullit yi ñu gis ne euh, macha allahu taala sang niiw itam boo sangee niiw ba pare macha allahu taala itam euh, mun nga mun nga mun nga mun nga mun nga nekk sang niiw comme li ñuy wax ni niiw kenn du ko du ko du ko du ko sang su dul dangaa set wala nangam yooyu yëpp dafa nekk ay détails yoo xam ne dëgg la dinañ ko gën a faram-fàcce gën ceeta su su si question yi parce que dafa nekk problème ñii nekk si pose nga xam ne tout le temps dañuy gis deret deret bi mënul passé fukki fan ak juróom su passé 15 jours rek nekkatul deretu bu lay teree julli wala bu lay teree jàng alquran walla bu lay teree sëy ak sa borom kër gis nga xam nga deret a ngi doon génn ñu ne la xaraam na bul jege beneen deret continuer di génn yàlla ne mun nga sëy kon léegi nan nga koy xàmmee bu dee yow moo taada nga ku tàmmoon di gis régal dangay seet période bi nga doon gis régal fan yooyu nga lim ko ci régal bu dee kuy soog a commencé ki ñuy wax mubtada bu boobaa kooku day xool li gën a néew ci régal mooy bëccëg ak guddi li ëpp ci régal mooy 15 jours bu passé 15 jours nag deret jooju nekkatul deretu régal kon mbokk yi macha allahu taala ñu ngi ubbi téléphone yi yi tamit di leen euh, wax ñu dugg. te itam ñuy ñaan ku mën a participer ci thème bi nga gën ci participer di ziar nag di nuyu di gërëm gërëm loo xam ne am na fu mu tàmbalee wala amul waaye amul fu mu yem muy Seyda Mariama Diallo ca États-Unis d'Amérique Seyda Mariama jàlloo bu Oustaz Mor Thiam suñu xaritu bopp ak borom këram Washington wala New York bu mu si nekk ñoo ngi koy sant di ko gërëm ci xeeti taraanga yeeg yu baax yi nga xam ne mu ngi koy defal ñi nga xam ne macha allahu taala ñoo nekk si diine ji ñoo nekk yi tamit ci l'islam bi soxna Mariama jàlloo yu loo mën ren yàlla nga mën déwén lu ci topp du ñu fàtte Adja yi sàmb du ñu fàtte itam macha allah na bu sekk di ko ci tur waa HLM Grand Yoff yëpp di nuyu tamit nag di gërëm waa Wélingara ndax vraiment Saint-Valentin bi ñoom niñ ko dundee mooy toog fa ba minuit di déglu yàlla nee na yonent bi nee na di déglu Alquran ñoom Asmaawu Diallo ñoom màgget suñu doomu bopp. ñoom euh, yaay booy ñoom ñoom macha allahu taala ah, rawatina nag Aline Ba. macha borom taranga juréy jos sëñ Aline Ba ñu ngi lay nuyu di di ñaanal yàlla yi tamit suñu suñu ña fa nekk waa Kolda yëpp nag Euh, macha allah ñoom baan euh, wax dëgg yàlla monsieur le maire nag ñu ngi koy wax ne gisuñu ko woon mere nañ ko trop waaye nag macha allah taala rek xam naa ne moom <laughs> Mamadou Wuri jàll bu yi passé xam naa ne dina ñëwaat gisanteeg jigéen ñu baax ñooñu di ñi nga xam ne ñoo organisé woon loolu nga xam ne ñoom dañ ne Saint-Valentin bi ni ñu koy dundee mooy xam nan la ñuy jaamoo yàlla ñëpp nag wuyu si ñuy gërëm population waa waa ñoom Aïda Diop ñoom Mati Sall ñi nga xam ne ñoo jóge woon Kolda ñëw ak euh, rawatina nag sama doomu ndey Adja édition spéciale ki nekk si ligne bi na egg ñoom rek laa doon xaar moo tax ma dugal ziyaar yooyu ak nuyoo yi salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum. salaam wa rahmatullah. <laughs> waaw li nga wax moom dafa baax moo tax. ndax ñu xale jigéen ñi màggagul ah. waaw comprendre. dëgg la. ñu xale jigéen ñi nga xamante ne ay xale dëgg la ñu ngi di ci mm-hmm. wax yaay ko. waaw. man thème dama neex. tey moom naa fexe ba dugg moom woote dëgg la ndax tata bi li muy wax dafa neex si ñun dëgg la ndax ñu ni xamagul dara dëgg la war a màgg dëgg la a mag bi naa ma yow <laughs> da nga waane wallaay waane woo diine dañ koy jàng waaw mun ma yow da nga waane xale bu eh, affaire yi man ko waa bàyyi mag yow yaa ngi noonu waaw mag day dem xale day dem de. waaw noonu na yéex yàlla na ngeen dund lu bëree bëree bëree bëri. te tamit lu ngeen si jàng ngeen jàngal ko seen waa classe yi. waaw mu ànd ak hygiène. waaw hygiène de vie jigéen dafa war a am hygiène de vie. waaw di set di sell di jaamu boroomam. Ah, waaw waaw bañ a rek eh, set ba pare rek prolongé. waaw ah set suba di xaar ñetti fan pour sangu set. waaw <laughs> su nag bu weeru koor bi ñëwee. dama leen a de. <laughs> kontaan naa trop waaye nga nuyul ma sa yaay ak euh, seen waa famille yëpp macha allah. waaw su ko defee loolu la rek nee na thème bi intéressé na leen dëgg la ndax xale yi ñoo ma ne tata il faut que yaa booy il faut nga waxtaanal ñu si loolu parce que deretu wasin itam gis ngeen wasin bi itam da ngay gis koo xam ne jour bi nga accouché la sa deret di jeex waaye nga toog quarante jours rek naan il faut ma am ñeen fukki guddi pour sangu fekk yow jour bi nga accouché matu ba wasin deret ji jeex dangaa war a sangu julli bisimilah mbokk salaamaaleykum. waaleykum salaam wa maa ngi sant yàlla bu baax tur bi ak fooy wootee yëkkatil baat bi tuuti alaaji. Moussa Ndiaye. Moussa Niang. waaw. Ah. waa alaaji Moussa Niang maa ngi lay ziar bu baax. Moussa Ndiaye. Moussa Ndoye. Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye. waaw Moussa Ndiaye lu tax santoo Diop yow tamit. Joal Joal Jiwaalo waaw maa ngi lay ziar bu baax loo waxtaan si thème bi. waaw Jiwaalo. waaw waaw mbokki Joal. sant lay ziar bu baax a baax a baax. di la bàyyi bu baax a baax a baax. jërë ngeen jëf. di lay bàyyi jërëjëf jërëjëf. di yaa rabbi. ñaanal wér. amiin yaa rabbal aalamiin alaaj Moussa kontaan nañu torop si yéen. Mhm. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. wallaay ndeysaan. donc maa ngi lay bàyyi xel. wallaay dëgg la. li ngay def ni li tax yàlla di la fay mooy dafa bëri ñu xamul te laaj. dëgg la dëgg la. donc maa ngi lay sant bu baax. dëgg la. jàmm di amin amin waaye kontaan nañu yàlla na la yàlla fay waa kay jërëjëf Alaaji musa ca Joal ñuy jaar itam di nuyu Adja Dem ak goroom Aïcha Ba ca Koungheul euh, Afat Dem bu Astu Dem ak Mansour Dem di leen ziyaar bu baax di bég ci ñoom ci xeetu euh, yu baax yi rek macha allahu taala aywa mbokk mi bisimilah ah, waaw bu ko defee rek. comme li ñu waxoon rek macha allahu taala ci deretu wasin boobu nga xam ne koo xam ne ci nga nekk ah bisimilah. asalaamaaleykum. oh là là waaw kooku moom rëcc nañu mais xam naa dina ñëwaat incha allahu taala. incha allah waa bisimilah. bi laa waa bisimilah sëriñ bu baax bi ñoo ngi lay dégloo. alhamdulilah maa ngi woote Pout nag. ah naka waa Pout. ñu ngi alhamdulilah. mbaa di nga ñu yónnee mandarin. incha allah bu jëlaat bi. waa <laughs> ngi nuyu waa Pout waaw comme maa ngi ko déglu nii. waaw. bon émission bi neexal lool lool lool. jërëjëf. comme sama olof bi setul mu ne ko dinaa wootee nuy. Mhm. ziar leen xamal leen yoon bi ngeen nekkee ne alhamdulilah yoon bu baax la. alhamdulilah jërëjëf. teg ci yàlla na yàlla boole sutura rek. amiin yaa rabbal aalamiina. Eh, waaye comme ni nga waxee rek affaire bu ngeen ci jigéen ñi kese na wax ci góor yi tuuti tam. waa dëgg la kay tey moom dafa nekkoon ne dañ doon waxtaan rek noonu waaye beneen yoon tamit xam nga janaaba bi moom góor ak jigéen yépp a ko bokk. waaw mais deret bi nag moom xam nga en général jigéen ñi lay gën a sonal te itam góor ñi dañ ciy bokk parce que ñoom ñooy bokk ak ñoom lal bi. te góor gi itam war na xam xeetu deret yooyu ba bu jabaram amee deret yooyu mu xam lan la ko yàlla may fu mu ci war a yem ak fu mu ci warul egg waa kay waa kay ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon defe naa ne ñu ngi ziar waa Pout yëpp rawatina sama tata Ami Collé di nuyu ñëpp macha allah salaamaaleykum wa rahmatullah. waaw ziar naa la. maa ngi maa ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. yow nag dama la sopp. eh waaye yow man maa la maa la fuuf. dama la bëgg bi lay wala li nga wax. Euh. sama wolof bi nag setul de. ah yow mii yow rek yaa set wolof man nu ngeen ko waxee neex na ma. maa ngi lay sant di gërëm li ngay wax ci yeneen ci bi ci yeneen muy wax en fait day gën a tax ñun ñu xam surtout xale yi. dëgg la dëgg la man yéenay sama afar yéen ci yéen la far macha allah. waaw ah, vraiment maa ngi lay gërëm. Mhm. dama am benn question tamit. bisimilah euh, euh, léeg damay faral. di mhm. euh, gént nekk ak ay sëyaguma nag de. waaw di gént yéen dama xamul nag est su ma yeewoo dama war sangu set wala. waaw est-ce que boo géntee boo géntee da ngay da ngay gént tëdd ak ñoom ba nga xam ne daanu nga. waaw. waaw bu fekkee daanu nga ni ñuy wax daanu wala jouir. waaw bu boobaa boo paree da ngaa war a sangu set. bu fekkee nag eggo foofu mais première kii yeeg yooyu rek te joto euh, egg juiro mhm. mhm. bu boobaa doo sangu set da ngay jóg rek jàpp

waaw loolu nag man euh, taxul ma ay ci noonu mm. waaye ñi may dégg ci borom xam-xam yi daal nee nañu am na ndax euh, rab moom jinne lu am la mm. ndax yàlla dafa bind nit bind jinne te yàlla nee na ñoom ñoo ñu gën a bari ñoo ñu gën a gudd fan te ñoom dañ ñuy gis te ñun duñ leen gis te ñoom dañuy dëkk ci suñu biir néeg yi di dëkk ci suñu biir toilette yi loolu moom lu am la ndax nag ñoom dinañ ñu nopp ba di ñu doxaan si mhm. loolu nag moom boroom ñi am xam-xamu jinne mhm. nee nañu am na waaw mais daal man li ma bëgg daal ngeen gën koo def seen bopp rek mooy ne daal alquran moom moo mën rab set di sellal alquran di déglu suratul baqara mhm. loolu moom dina tax rab bu nekkoon ci yow sax dina génn dem yoonam ak di wax laa hawla wala quwwata illa billahil mhm. aliyil azim ñetti yoon mhm. ak di wax euh, di nekk toujours nag di set encore itam seen yaram yu rafet yooyu macha allah xam ngeen da ngeen a jongama kaar ngeen di ko nëpp nag ba am borom kër. won ko ko moom dong bañ ko won public bi. waaw. <laughs> bëgg naa amul benn problème bul bul bul quitté ñu jox la ko. d'accord merci waaw merci beaucoup ma fille chérie je t'embrasse très très fort <laughs> merci. <laughs> waaye gis ngeen macha allah sama doom jooju macha allah taala ñu leen di wax rek faru rab bëri na ak coro rab loolu nag am na ñu ciy def ay yu bëri mais ñun xam naa ne man sama xam-xam taxul mu dem si noonu mais xam naa ne moom jinne lu am la xam naa ne itam wax naa leen sànq ma ne istihaada yonent bi nee na wéqu seytaane la kon saytaane lu am la tey tamit wéqam dina ja dina tax nit ki fu mu toll muy sañe di gis deret fekk deret jooju du la teree julli du la teree wor du la teree jàng alquran ñu koy tuddee ci arab al istihaada deret jooju macha allahu taala ku mu nekkal bu boobaa nga gën a gës su boo demee sax ci téere bu ndaw boobu ñuy wax al ahdari yu lu bëri macha allahu taala dina ca feeñ euh, mooy mooy rek il faut ngeen gëstu il faut ngeen jàng jigéen ñi bisimilah ki nekk si ligne bi waaw bu ko defee kon euh, ndeysaan macha allah rëcc nañu waaye euh, ni ma leen ko waxee rek euh, ñuy nuyu bu baax di ziar ma Adja maam Awa si bu Serigne Diop salaamaaleykum wa rahmatullah. salaam wa rahmatullah. waaw soxna si bismillah. ay yow kontaan naa comme que naa la. ah alhamdulilah rabbil alamin kenn la. man la Mariama Sow. Mariama Sow Sow pour la jéeri maa ngi lay nuyu di la ziar. kontaan naa bu baax. man maa gën a bëgg. <laughs> damaa kontaan ba xawma lu may wax. Ah, man maa la gën a bëgg de xanaa li ngay wax rek mooy loo xam ci ah, xale yu jigéen ñeeg wala jigéen ju mag ji nga xam ne ah, ni ngeen di gis li nit di gis pour sangu farata. ak cangaayu farata bi loolu lañ doon waxtaan. dëgg la moom. waaw dëgg parce que man dafa am loo xamante ne man dama ndax man daf may waaw bisimilah. ndax man heure bu may sëyee ak suma jëkkër ba pare. waaw faru rab bi il faut que mu ñëw sëy ak man. ah kii nag moom tamit du bàyyi yëfi jàmbur. bu ma sëyee ba pare wala sax yow man damay yaakaar ne ëmb naa. waaw yàgg tuuti mu ñëw sëy ak man. ah. loolu moom yéen nag loolu moom dafa maa yéem moom trop jàng naa moom jàng naa tuuti waaye sama jàng sori moom. waaw est que est que bala ngaa sëy di nga di nga léemu. léemu yooyu nag laa xaw a fàtte xam nga rek. da ngeen di yàkkamti daal ba du ngeen léemu. waaw baax na moo tax ñeneen ñi di ñëw di si bokk. dëgg ah mës naa koo gis. yow euh, yow préparation yëpp di ngeen ko def mais côté côté côté diine bi ngeen teg ko na le waxoon nañ la ne le premier jour bañ la koy jox. na nga julli ñaari ràkk nga wax allahuma jannib ni shaytaan comme yow jàng nga. wa jannib bi shaytaan ala ma razaqtana waa lii gënul yomb. dëgg la dëgg la dëgg la ah gënul yomb kii di ñëw rek di ci bokk te kenn boolewu ko ci. affaire yi waaw affaire moom dafa maa jaaxaloon. ah del del léemu te nga faral nag di jàng ayatul kursi. Mhm. saa yooyu tëdd na nga tëdd sa côté ndeyjoor. Mhm. ñaan boobu mu ngi ci xisnul muslim xisnul muslim benn téere bu ndaw la boo xam ne mhm. ñaanu yonent farata yépp a ngi si boo ko jaa jëndee dina la wax ndax yépp du du xej fii te duñ ko mën a joxe nii rek moo tax. wala boo amee sama numéro téléphone. waaw waaw boo ko amee boo ñëwee kër ga ci daara ji foofu xam nga ñun ubbi nañu daara yu bëri. am na bu nekk amo Grand Yoff kër Adja Sagar Diop waa deuxième tranche HLM Grand Yoff sama kër foofu ci jàkk ji yooyu yëpp bu ngeen ñëwee lu ngeen soxla ci yu sew noonu diggante ndey ak doom yi ñu mënul wax sax ci télé yi bu ngeen ñëwee ngeen jël gratuitement fayee wuñ ci dërëm dañ koy def rek fii sabilillah ngeen ñëw jàng xam euh, fii sax TFM gi sax war nañ fee ubbi daara ndax yooyu tamit lu ñu soxlal la euh, na ngeen góorgóorlu daal nga jël numéro bi foofu bul quitté euh, ñu jox la numéro bi après nga wootee ñu jox la ci li ci liñ ci xam mais daal boo ma gisagulee jotagoo ma itam daal bala ngaa ànd teeg borom kër gi na nga julli ñaari ràkk nga jàng juróom-ñaari ayatul kursi yi lu mu tuuti tuuti nga tëdde sa loxo ndeejoor léemu ba pare jàng lixlaas falaqi naasi ba pare wax allahuma jannibi shaytaan wa jannibi shaytaan ala ma razaqtana après nga ànd ak sa borom kër répondre après nga wax ma résultat bi waaw bisimilah. asalaamaaleykum mbokk. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw yaa bi. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ah tata Fatou Bintou. waaw maa ngi lay ziar. naanu ko Salif ñoo ah, allah bég naa tur bi ak fooy wootee. soxna maam jaare moom Touba. ah soxna jaariyatu la maa ngi lay ndokkeel ci màggalu turandoo bi. ak saa ñoo ko bokk. waay naka mbokki Touba ñoo ngi ziar ñëpp. ñoo ngi delloo ziar bu baax jërëjëf di ziar xalifa bu tedd bi ak njabootam yépp mm-hmm, jërëjëf waxtaan bi am na solo waa kay jërëjëf waaye. xam nga lii moom dafa baax ndax diine moom. Mm-hmm. dañ ko war a leeral rek mu sell. waaw mu leer nañu waaw. waaw ndax ñi nga xam ne dañoo xamul. dëgg la dëgg la yaay booy. ci la ñuy jaaree ba si. dëgg la. yow ñu ko amee. Mhm. Sénégal mhm. euh, xam-xam yi ñoom ñoo fi wutu. ñoom ñoo fi wutu yonente al ulama warasatul anbiya waa dëgg la de waaye yow moom. wallaay yaa baax waay nen tuuti. yaay booy soxna jaara maa la raw maa la raw foofu yaay booy yàlla na la yàlla fay. yàlla xam na ne so sa émission fu ma lay bëggee fu mu wax. kon tamit yow mbaa yaa ngi jàngal sa moroomu jigéen ñi nekk foofu ak góor ñu ndaw ñi sax. waaw fii moom ñu ngi fiy góorgóor ndax dañ fi yor daara. sax benn allah. waaw man la dëgg la. waaw maa ngi lay waay waay waay yaa rabbal aalamiina waay yal na yàlla nangu ñaan bi. ñu ngi ñaanal ngir li Youssou Ndour suñu borom. waaw Youssou Ndour waaw ndeysaan alaaji ak ñoom Bouba ñoom eh, Ndiaga ak ñëpp jërëjëf waay. <laughs> yow doo ko bàyyi mu ñaanal ñi muy ñaanal ba pare. salaamaaleykum. <laughs> waaleykum salaam wa waaw. maa ngi lay ziar. eh waay yal na yàlla nangu eh ziar. waaw kontaan naa. man maa gën a kontaan waaye. damay bëgg a pour di la jot mais day serveur bi day xat. waaw loolu la nag ndeysaan ñoo ngi jégalu. Seyda man dama laa bëgg. wallaahi laazim yàlla seede na ne maa leen raw. dama laa bëgg yow ak waaw waaw kooku sama rakk la kooku sama rakk la soxna Zeynabou Fall. soo génne naa ma Fatim kaa xool sa xarit ñëw na wallaay ndeysaan ay eh waay yaa baax waay. kontaan naa trop. jërëjëf jërëjëf jot la bëggoon naa am tamit sa numéro. waa amul benn problème léegi bu soobee yàlla ñu jox la ko. waaw comme sànq li nga doon wax. waaw. ci waxtu waxtaan am na solo trop. dëgg la. léegi dama doon kii laaj benn question. waa bisimilah yaa booy. pour ndox bi nga doon wax ni boo dee mhm. xaw sa borom kër boobu mooy génn loo xamante ne du jar sangu. waaw lay laaj. waaw. waaw ba xam mën wax ndox bi nu muy mel. waaw ndox boobu yaa booy mooy dafay xaw a tax mooy li nga xam ne rek ci wax mbégte bu ndaw rek lay génn. waaw waaw mooy ndox bii nga xam ne mooy njëkk a génn dafay tax tuuti boo ko seetee. te oyof moom dafay oyof xam nga man yoo ko gën a diis. mooy ndox bi nga xam ne mën nga sax nga toog di seetaan film wala léeg-léeg nga toog di seetaan déglu musique sa xol bég wala yu mel noonu rek mooy lu nga xam ne dangay sentir ne rek boo ko làmboon ci sa loxo day tooy ni xawari tax. boobu moom bu la dalee da ngay jàpp rek waaye nag bu mag a mag bi nag mooy bi nga xam ne sa cër yëpp a koy yëg mu génn boobu ma nag moom bu boobaa moom moom mooy sangu bi. waaw waaw kay nen ne tuuti. jërëjëf kontaan naa. waa waaw léegi bu soobee yàlla bul coupé ñu jox la ko bul quitté. ndeysaan macha allahu taala ñu ngi jégalu bu baax waaye nag xam nga rek ndey moom day jàngal doom yi mu leer naññ waa bisimilah salaamualeykum aleykum rahmatullah maaleykum salaam. waaw mbokk mi waa ñoo ngi ziar doo yëkkati baat bi tuuti. ba ñoo ngi ah yu tey yaa ngi fi de te rek. Eh, maa ngi seetaan émission bi sànq dafa am benn kii boo joxe woon pour bala nga ànd ak sa borom kër. waaw dama kaa suivre bu baax. waaw bi ngay wax dangay ngay julli ñaari rakka. Uh-huh. def aayatul kursi yu. Uh-huh. dama xamul ñaata ayatul kursi yi nga war a def. waaw. ak beneen am na benn béyit boo mujjee wax boobu dafa xaw a bar. waaw moo tax jotuma koo bindu mos dama ki kii yoon nga nga nga delluwaat si tuuti waay. su ko defee mooy bu fekkee gudd gi njëkk gi la mooy jour bi ñu la koy jébbale. mooy ñi nga xam ne jébbale guñ leen bu ñu leen di jébbale waaye ñi nga xam ne jébbale nañ leen ba pare même bu ñu bu ñu jullee gee ba def seen euh, li ñuy wax. Euh, Euh, sa safa ak witr bu ñuy tëdd da ngay tëj sa loxo ndeyjoor toujours booy tëdd sa kaw lal mm-hmm, mm-hmm. première li ngay defa def mooy lal bi lu mu set set na nga ko fëgg darab bi na nga ko yëkkati nga fëgg ko parce que yonent bi moo ko santaane ndax xam nga soo lalee salal ba pare dem ñeneen ñi dañuy ñëw tëdd si wala ñu tëral ci seen doom yi fëgg gi nga koy fëgg nag da leen di dàq mm-hmm. nga tëddee sa loxo ndeyjoor lal sa ndeyjoor def nii am na ñaan booy jàng boo xam ne allahuma inni wadaatu jan bi boobu ñuy wax dafa xaw a gudd mais ci gàttal daal bala ngaa sëyeg sa boroom kër ayatul kursi yi moom juróom-ñaar la ak ñetti lixlaas ñetti falak ñetti naasi loolu mooy aar njaboot gi ak kër gi yépp mm-hmm. bu dee nag sëy bi ngay sëy yaag sa borom kër nga bañ seytaane bokk ci sëy bi pour nga mm-hmm. bañ a am doom ju mel naka sudul noonu mm-hmm. mooy allahumma jannibni shaytaana wa jannibi shaytaana ala ma razaqtana allahumma jannibni shaytaana jannibni shaytaana wa janni bi soy shaytaana ala ma razaqtana oustaz bu la gën a jege wala imam bu nekk sa koñ sax boo demee dina la ko bindal wala boo ma woowaatee après émission bi ndax temps la xam nga mm-hmm. bu soobee yàlla dinaa la ko jox par kii wala may yónnee la ko par SMS nu may numéro bi bul quitté léegi bu soobee yàlla waa régie dinañ la ko jox waa kay yàlla na yàlla nangu te may ñu taw tawfiq loolu mooy ne il faut ngeen dem ci daara yi parce que loolu képp kuy sëy war nga koo mën ndax day tax doom boo jur seytaane du ko laal mukk mukk boo ko defee guddi googu yàlla sas ci doom doom boobu seytaane du ko laal mukk mukk mukk ba keroog muy màgg macha allah. waaw yow tamit bu am importance day dëgg la dëgg la dama koy suivre par àjjuma. wallaay ndeysaan. boo amul mm-hmm. nii dëgg la dëgg la. am na importance daal. wallaay ndeysaan <laughs> ñoo ko bokk ñoo ko bokk. moo ko bokk looloo ñu war looloo ñu war. islam bi moom dañu ne rek yonent ba liw an nii wala aaya luñ ci xam daañ ko wax ñëpp incha allahu taala su ko defee mbokk yi mu waaw bu ko defee macha allahu gis ngeen temps baa ngi kii te oustaz Abdou Karim ngi waaj ñëw firi gént moom it xam naa ne gént yi waa am na ku mujj bisimilah. salaamaaleykum. waa mbokk mi ah jotuma ko de bisimilah mbokk ñëwal waay yow la ñu waroon a mujjee jël. waaw bu ko defee bu ñëwulee rek ah, macha allahu taala ñu nuyu Adja Jatu Silla euh, bu Serigne Ibrahima Lo Inakwa Adja Jatu Silla sama goro boobu maa ngi lay nuyu ci kanaalu Pape Diop Khalil ak Roqee si euh, di la ziar bu baax a baax a baax a baax euh, di gërëm nag di sant Adja Dior Silla Kan ak Abi la Adja Dior mi nga xam ne moo génn ci tey ci lii ma sol ah, te itam ki ko joxe nag di maam Kumba Ndaw madame Fall Adja maam ku Kumba Ndaw ma koy nuyu di nuyu rahma yépp di leen ziyaar di ñaan yàlla yal nañu yàlla defal tawfiq di ñaan yàlla màggal gi ñu jóge démb yàlla na saawaan baawaan di ñaan jàmm nag ci réew mi ak dal yal nañu yàlla defal jàmm defal ko waar réew mi defal ko suñu kilifa diine yi defal ko suñu kilifa aada yi ñu nekk ci hôpitaux yu wër ak jàmm ñu nekk ci prison yi génn ak jàmm prison yi yàlla bu fa kenn demati yàlla nañ dund ba prison yi nekk ay classe parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne suñu jëkkee école yi balaa jàkka yi dinañ dem ba prison yi kenn dootu fa nekk kon yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi may nuyu macha allahu taala oustaz alaaji Euh, ca fële ca Wélingara ak oustaz Ndoy ñi nga xam ne ñu ngi ma yóbbante woon nuyoo ci oustaz euh, macha allahu taala oustaz euh, ma Thiam oustaz yàlla na ko yàlla fay may nuyu di gërëm rek Mariama Diallo bu baax ca Washington di alo waaw kon daal fii la ñuy yemale waxtaan bi macha allahu taala di leen fàttali nag le 28 mars ca place du souvenir ci waxtaan woowu nga xam ne oustaz Pape Anna nga koy wàcc à 18h bu ko kenn kenn tardé képp kuy soppee oustaz Pape ann wala ngay soppee TFM xam ne TFM am na bés bu mag la vingt 28 mars ca place du souvenir ñu bàyyi leen léegi nag bu ñu yëkkatee jotaay bi. ak oustaz Pape euh, oustaz Abdou Karim Ba firi gént mu mottali liggéey bi macha allahu taala ñu ngi ñaan jàmm di ñaanal réew mi di ñaanal sama borom kër kaaw yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gi yaram di ko wax yal na ko yàlla yëkkati jàmm ak Adja Binta ak njabootam yëpp waa xiru daawaana ani alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu